Euh, ñuy tàmbali waxtaan bi nag ak une question d'actualité boo xam ne depuis démb wala sax ay semaine ko jiitu euh, mi ngi xaw a préoccupé euh, sénégalais yi rawatina benn zone bu mu tuddee Ngor ak jàmmarloo bi nga xam ne am na fa dem na fa atteindre niveau bu xaw a inquiétant bañ teen sax am na ko ci ñàkk bakkanam vous en tant que autorité de la République vous en tant que sénégalais déjà naka nga jundee loolu waaw merci beaucoup Mamadou Awa en tout cas en tant que citoyen mm-hmm. bu ma analyser événement yi mun naa ne bon euh, euh, réeroo amul ñàkk waxtaan moo am parce que boo xoolee situation bi en réalité euh, la gendarmerie a voulu implanter en tout cas une structure pour assurer la sécurité mhm. des citoyens des populations de Ngor mais de l'autre aussi de l'autre côté aussi les jeunes ils ont voulu en tout cas qu'on fasse un lycée pour l'éducation donc euh, toutes les deux parties ce sont des causes nobles. ñaar yëpp priorité la ñaar yëpp priorité la. Mhm. waaye nag comme euh, euh, certainement amuloon waxtaan loolu moo tax ñu am euh, difficulté bi mais lu ñu mën a wax rek mooy lu gën a important tamit le président de la République quand même il faut le remercier le féliciter s'est saisi du dossier vraiment il a eu une issue heureuse. donc loolu la ñuy ñaan Sénégal moom dëkk jàmm la. Mhm. vraiment loolu la ñuy ñaan. ah une issue heureuse mu doon loo xam ne euh, ñëpp espérer woon nañ ko mais le problème qu'on se pose mooy comment en sommes arrivés là euh, on a trop laissé faire parce que ça dure depuis des semaines. oui mais le plus important pour moi le plus important ce n'est pas le fait que ça ça duré ou pas le plus important c'est qu'il y a une issue heureuse. voilà tant seetaanul que en n'ont pas abouti bon démb la affaire bi xaw a kii tuuti mhm. mais je pense que vous avez vu quand même le président de la République est resté jusqu'à quatre heures du matin pour régler euh, euh, euh, l'affaire mhm. et vraiment li ma mën a wax rek mooy vraiment regrette les incidents on demande aux populations vraiment de discuter et puis pour éviter vraiment ce genre de ah, situation am na ko ci ñàkk bakkanam euh, le ministre de l'Intérieur gën na benn communiqué am lu mu ñu wax mais population yi waxuñu loolu forum civil également euh, jàpp nañ ne communiqué bi voilà dalul xel c'est pas rassurant parce que aussi euh, ci jàmmaarloo yi ñu ne ñu benn xale bu jigéen bu ndaw ñàkk na bakkanam ci biir géej gi élis gaal moo ko laal loolu tamit ñi ko dégg gëmuñu ko en fait waaw xam nga état moom vraiment moom day day dafa joxe en mhm. tout cas selon ces informations moi je suis dans le dispositif étatique je ne peux pas remettre en cause vraiment euh, ministère de l'intérieur lu mu wax parce que mais justement est-ce que moom moo assuré non permets-moi moom moo assuré suñu sécurité mm ce que je dis euh, vraiment en tant que citoyen eh, nous regrettons en tout cas ces incidents et on quand même que mu ñu bañ am incident yooyu. ah li ma doon wax mooy est-ce que ci fii nga xamee ne dara wóoragul waroon nañu génnee communiqué euh, naan Élise euh, Gall moo xëy na moo ko rey maanaam c'est c'est un peu hésitation am na ci en fait. non c'est pas convaincant du tout. non ministère de l'intérieur il faut nga xam ministère moo yor kaaraange Sénégal donc ils ont des informations que yow. que mhm. man awma ko donc bu ñuy defee communiqué c'est que ils ont. donc war nañ tënku ci loolu ñu jàpp ne loolu moo am réellement avenir du ñu du ñu du ñu démentir. non de toute façon je pense que lu ñu mën a jàpp rek lu ñu mën a jàpp ma euh, Mamadou Awa mhm. c'est que des événements c'est sûr que dans les prochains jours il y aura des enquêtes mhm. te ñu defee enquête dañu leeral mbir yi on aura toutes les informations. d'accord voilà avant ñuy bàyyi dossier boobu juste une dernière question sur Ngor démb gis nañu que ne un responsable politique a pris la parole di sàkku ci les euh, zones yi nga xam ne ñoo wër Ngor ñoom it ñu jël euh, bataille bi def ko seen yëfu bopp ba sax am na ñu commencé woon di di manifester loolu noo ko gisee. non c'est loolu moom irresponsabilité la xam nga nit doo profiter d'une euh, d'une situation. Mhm. pour vouloir semer le chaos. waaw vraiment loolu tamit rafetul moi je pense que d'ailleurs maa ngi féliciter. le maire quand même de Ngor qui a pris la parole et qui a remis les pendules à l'heure, qui a dit que vraiment ñoom ce sont des populations qui aspirent à la paix donc il faut pas profiter d'une situation pour vouloir vraiment euh, comment dire profiter d'une situation pour euh, mettre le feu dans le pays. Mmh. Ça c'est pas euh, le, ça ça doit pas être euh, la posture d'un responsable ah, politique. Ah, mais dara ko ci fekk wax ju mel noonu bu doon keneen la xëy na justice bi day def liggéeyam rapidement. non du loolu non <laughs> bon mënuma ko wax parce que xam nga wax na ko. voilà maintenant bon. te ça a eu des conséquences am na ñu génn manifester après ba ci wakaam gi am na ñu génn ci wetu monument bi commencé ñoom it di yëngal. je veux dire kilifa gu toll noonu kàddoom dafay porter euh, état war ngeen ci am responsabilité ci yu mel noonu. ce que je peux dire en tout cas l' état sera debout pour défendre la république. Mm mm-hmm. l' état sera debout pour assurer la sécurité des citoyens. Mm-hmm. des biens de ce pays donc loolu moom loolu laa ji mun a wax. d'accord euh, ci loolu ba tey Ousmane Sonko pour ne pas le euh, moom la am na lu wax nee na euh, jamono ji sentir na ne gestion affaire bi xewoon Ngor dafa leen xaw a échappé ndax benn gox bu ndaw a ndaw et ça a pris des des semaines mënu leen ci dara donc bu peuple sénégalais yëpp jógoon xajuñu ci régime Macky Sall mën na sax bañ a jeexal mandaawam. waa loolu laa la wax c'est-à-dire je vais pas trop insister les commentaires d'un responsable ce que est-ce que c'est que tuutaloo ko. lu ma mën a a des des milliers de personnes derrière lui. non tuut tuutalu li ma wax mooy je le répète premièrement une issue heureuse a été trouvée. Mhm. le Sénégal loolu. et am incident non c'est fini le problème est réglé le président la République a réglé définitivement. leneen du amaat non du amaat incha allah. Mhm. du amaat euh, quand on est responsable. Mhm. Euh, dans un pays comme le Sénégal sa kaddu war nga ko contrôler. waroo war neex waroo wax li nga bëgg parce que dëkk consensus la dëkk waxtaan la mun na am ay ay difficultés mais un bon responsable doit toujours prêcher pour la paix. Ah, vous êtes le ministre chargé de la promotion des droits humains euh, jamono jii gis nañu que ne kaso yi bëri na ay nit trop ñu bëri jàpp ne les droits humains sous Macky son sont euh, euh, son euh, négligés nit ñi amatuñu trop kaddu ci li ñuy bëgg di wax wala euh, liberté yi dafa dafa dañ koo tënk une deux noo tudd nii laa def ñu jàppale tëj ci kaso bi y a un parti politique ki qui qui dit que lu mat 300 euh, membres yu fa bokk ñu ngi ci kaso bi jamono ji même ñun la presse aussi on a des des des yoo xam des confrères yoo xam ne actuellement ils sont ils sont en prison. waaw d'accord il faut préciser les choses d'abord le Sénégal est un état wax naa ko waxaat ko le Sénégal est un état qui respecte les droits et libertés fondamentaux. loolu ku ci wax leneen day wax lu ko neex. mais sur le terrain sur le terrain oui le terrain moo loolu moo am parce que wax na ko je pense que dans mes précédentes émissions wax naa la mm-hmm. fii le la manifestation est autorisée mais ce qu'on ne peut pas autoriser en tant qu'État du Sénégal on ne peut pas autoriser que des gens font des casses que des gens brûlent les maisons de responsables que des gens disent n'importe quoi sur des honnêtes citoyens et que ñu bàyyi leen lu noonu loolu mënul nekk parce que état l'état doit rester fort et aujourd'hui l'état doit assurer la sécurité et la tranquillité des Sénégalais et pour cela l'état prendra toutes les mesures les mesures idoines pour que cette sécurité et cette tranquillité soient assurées dans ah, les meilleures ah, conditions. Euh, votre facteur li ñu mooy vous êtes euh, euh, prompt à dire que l'État doit rester fort euh, force doit rester à la loi quand il s'agit que euh, d'adversaires quand il s'agit dañoo xam ne li ñuy wax xëy na arrangé wu leen mais souvent il dénonce que ne euh, justice boobu ngeen di ngeen di sàkku wala force bi état di war a wane da koy wane juste ci ñi nga xam ne ànduñu ak yéen. waaw man dama lay laaj euh, parmi depuis ñu commencé manifestation yi. Mhm. est-ce que ils ont une fois incendié une maison d'un opposant jamais. les incendies les calomnies le le le comment dis la euh, discréditer les les les les les forces de défense et de sécurité ñan ñoo nekk di ko def donc aujourd'hui nous ce qu'on veut c'est préserver l'État ce que nous sommes en train de faire là parce que tu ne peux pas dire parce que tu es un politicien parce que am nañ nit ñoo nekk ñoo xam ne ñuy nekk sa ginnaaw wala tu es un journaliste brillant tu peux te permettre de dire n'importe quoi ce Sénégal la c'est pas le Sénégal que nous voulons ce que nous nous sommes en train de faire aujourd'hui nous le faisons pas pour nous-mêmes mm -hmm. nous le faisons pour nos enfants parce que si on laisse n'importe qui faire ce qu'il veut demain il y aura pas les institutions or en droit on a l'habitude de dire les hommes passent les institutions demeurent. Uh -huh. voilà mais monsieur le ministre euh, li nga wax ni euh, dégg naa ko ah. mais ñun aussi on ne cesse de de le dire euh, tey jii nii par rapport ak arrestation yi. Euh, ñu si bëri ñi ngi ma wax nii ils ont été arrêtés pas pour des actes euh, commis mais ay ay paroles yu yu yu wax la maanaam seen seen kaddu rek lañu ñu yem alors que dans votre camp aussi gis nañu wax ay kaddu yu garaaw ba tey actuellement dara ils sont pas inquiétés foofu foofu la gars yi di di poser ay questions en fait. ma le kaddu xam nga am na ay kaddu yoo xam ne euh, paroles yooyu ça peut mettre le feu dans dans dans dans la société il faut que aussi ñu xam ko nit pour man responsable mun nga opposé wu. Parce que il faut le dire, nous, nous ne sommes pas contre de ceux qui critiquent l'action du gouvernement. Dans tous les pays au monde, l'action du gouvernement est critiquée. Opposition, nous on veut une opposition républicaine. Mais cette, euh, cette opposition-là, le comme ni ma koy wax le nouveau type d'opposition boo xam ne seen euh, euh, seen seen affaire mooy euh, calomnier inventer des choses, dire des choses qui n'existent pas. Tout ça pour discréditer le pouvoir, pour mettre en mal le pouvoir et les populations, loolu tamit jaadul. Donc loolu moo tax ñun pour le bien des Sénégalais, mm -hmm. l'État est obligé de rester fort. Mais une opposition euh, mise dos au mur, comme ni nga waxee, une opposition aussi euh, persécutée. position euh, boo xam ne euh, amatul euh, voix au chapitre mënatul wax mënatul exprimer gis nañ ko fi parce que dans le passé y a y a eu des exemples yoo xam ne dañ leen a empêché ñu accomplir li xam ne mooy mooy seen seen seen bëgg-bëgg tey ji aussi crainte boobu moo fi nekk di plané ce qui s'est passé avant ak le procès de Ousmane Sonko aussi un responsable de de Ousmane Sonko am des chances ci présidentielle bi diffamation nar ko xañ candidature ñu tëj ko en première instance deux mois avec sursis te ñu def encore six mois tamit euh, c'est révoltant bon d'abord d'abord l'opposition au Sénégal est en train d'exercer librement ses droits quelle opposition voilà l'opposition elle est en train d'exercer librement ses droits ce qui se passe c'est que les marches pacifiques sont autorisées mais boo buggee def marche di casse loolu kenn mënu la jox autorisation bi ça c'est un deuxièmement par rapport au procès dont tu parles mm -hmm. il faut vraiment aussi qu'on soit euh, sincère sérieux dans ce que nous faisons en réalité euh, yow tey bu ma la nee dangaa sàcc vingt neuf milliards dangaa luubal vingt neuf milliards toi tu as une famille la diffamation c'est quoi c'est-à-dire aujourd'hui on estime que toute personne qui est lésée peut demander aux, aux, aux, aux tribunaux Euh, mais de de gain cause. parce que on vous a on vous a diffamé on vous a dit que vous avez volé alors qu'en réalité vous savez bel et bien que vous n'avez pas volé vous avez une famille on a porté atteinte à votre honneur on a porté atteinte à votre honorabilité Et vous voulez que celui-là, parce que simplement, celui qui l'a fait, c'est un responsable politique, c'est quelqu'un qui a du monde derrière lui, c'est quelqu'un qui est candidat à la présidentielle, vous voulez qu'il reste comme ça, qu'il ne fasse rien Mais le problème. Non. Deux mois, non, mais ça... Oui, mais... Le parquet, mon moment def en fait. non, le parquet, il faut, que ça soit clair. C'est pas le parquet seulement. C'est les deux qui ont fait appel. Parce que pour les intérêts civils, le le le le le, le celui qui n'a pas qui a considéré que la décision mhm. de première instance ne le convient pas celui-là a porté l'affaire le parquet n'est pas l'avocat de l'État c'est l'avocat de la société le, le parquet s'il estime qu'une décision en tout cas ne respecte pas les règles et les principes de droit parquet boobu am na am na sanction là on parle que de diffamation non fait que si aujourd'hui on vous dit dans votre service que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui si on vous dit que vous avez euh, détourné alors que vous savez en âme et en conscience que vous n'avez pas euh, détourné qu'est-ce que vous allez faire vous allez porter plainte. Porter plainte, c'est oui, ce que le gars il a fait non mais attendez vous pouvez mais jugement. c'est la loi condamné poser question est-ce que la loi ne permet pas un citoyen qui n'est pas d'accord avec une décision de justice rendue en première instance est-ce que la loi ne permet pas à celui-là. d'interjeter appel. La loi permet même à celui aujourd'hui à qui on a condamné. de de se pourvoir en cassation. mais li ma bëgg wax mooy monsieur ministre li ma bëgg wax mooy monsieur ministre. waaw euh, il a obtenu réparation. Euh, nee nañu waa ji war na fay millions on l'a jugé coupable. tey dans un état boo xam ne bëgg nañu stabilité am bëgg nañu jàmm am est-ce que waruñu woon suffire ci ci loolu noonu. la stabilité ne se fera que dans la justice. pourquoi au nom de quoi. pour vouloir la stabilité on va demander à Mame pourquoi on va demander à Mame de ne pas exercer des droits euh, parce que on veut une stabilité parce que li tax une main politique mooy juste après verdict il était satisfait il était content mais après peu de temps après il revient pour nous dire que dafay def appel donc on sent que à ses camarades ou même au chef de l'État pour que ñu pousse ko ci ci vous savez moi je ne regarde d'une manière strictement privée c'est entre deux personnes mm -hmm. la question nee naa la yow tey si dans ton service fi ngay liggéey fii dañ laa ne dangaa da da da da ngaa sàcc mhm. def dina porter plainte dina porter plainte bu ñu jugee ne il est après man ma kontaan waaw bu dee non yow la tu es libre euh, nga ne première décision première instance bi ça te convient mais tu peux aussi dire que non je ne suis pas convaincu par la décision je pense que on doit me donner plus je pense que la personne euh, doit. et plus et puis tu portes l'affaire devant la la cour d'appel. Mhm. c'est ça. ki ngeen ko seqal euh, doon na koo xam ne il ne laisse jamais il ne laisse jamais rien euh, ah. déjà pare nañ ci affaire euh, Mambay bi. mais beneen mi ngi ñëw muy bu Adji Sarr bi. le 16 te boobu la ñu gën a am crainte. parce que Mambay bi il était même pas obligé de se présenter au tribunal. mais bii il faut mu ñëw. te naru ko ci ci li mu wax. déjà acte boobu noo koy noo koy gisee mais aussi les conséquences. non man li ma xam benn affaire la en que l'État a les moyens de contraindre à tout citoyen de répondre à la justice. Et l'État sera debout pour défendre la République. L'État sera debout pour défendre les institutions parce que pour man. mais en république une en cendre et en feu est-ce que mën nañu ko défendre après. non non maanaam bu contraindre. après personne je le mhm. dis ma ma euh, Mamadou Awa. oui personne aujourd'hui personne ne peut mettre cette république là en cendre. gaa yi tiit nañ de sénégalais yu ah. bëri seen xel dalul déjà saa ñu ko convoqué gis nga les boutiques ferment euh, les bus arrêtent de de circuler euh, manque à gagner bu énorme am imaginel donc nag euh, voilà leneen leneen leneen nar a xew li ma li ma la mën a wax rek l'État prendra toutes les dispositions pour que le droit soit dit pour que le processus et vous assurez la protection des citoyens en respectant oui en respectant les droits en respectant les droits de la défense ça c'est c'est ça mm-hmm. l'État ne va pas flancher là-dessus d'accord euh, ñu wéy ci waxtaan bi ba tey euh, tey jii nii euh, gis nañu que procès bi fixé nañ ko mu ngi am arrestation yi mi ngi wéy mais président Sall bi ngi woote dialogue ñu bëri jàpp ne loolu dafa xaw a contradictoire dans la mesure où booy woote dara xëy na da war def benn geste ñu xam ne kat am na loo bàyyi mais les détenus sont encore en prison le procès est fixé Ousmane Sonko est inéligible donc c'est c'est c'est c'est nit ñi comprendre ñu en fait. oui c'est vous vous vous posez plusieurs <laughs> pour le dialogue. mais je vous ai dit tout à l'heure lu Macky mooy dem jàpp nit dugal ko kaso quand le président de la République a appelé le dialogue le procès est déjà en cours en vertu de la séparation des pouvoirs le président ne peut pas intervenir dans une décision de justice. wax mais on sait tous que non non voilà. non c'est la vérité c'est ça la vérité léegi lu lu ñu mën a li ma lu ma mën a wax rek. Mhm. mooy mooy aujourd'hui euh, vraiment. une une euh, une, une décision un dialogue le président de la République a appelé le dialogue le dialogue de tout le temps parce que damay euh, gis ne gars yi souvent di ne non Sénégal day tàkk tout ça mais l'approche de toutes les élections au Sénégal ku xam histoire politique Sénégal mhm. tout à à une année des élections toujours le landerneau politique est en ébullition le président de la République a appelé à, à, à un dialogue il n'était pas obligé parce que comme je le dis les institutions fonctionnent normalement les pouvoirs publics fonctionnent normalement le gouvernement fonctionne normalement donc il a appelé un dialogue li may ñaan euh, les autres en tout cas la société civile euh, les organisations de la société civile les partis politiques les républicains mm-hmm. ceux qui croient à la démocratie ceux qui croient à la République li ma leen di ñaan nañu ñëw parce que il y a des choses sur lesquelles on peut discuter par rapport au parrainage par rapport à beaucoup de choses euh, par, euh, on peut discuter et trouver une solution loolu mais on pouvait le faire depuis très longtemps mais l'a toujours fait aujourd'hui et maintenant moo xaw a inquiété non le dialogue a, été constant au Sénégal nous l'avons fait euh, entre 2019 loolu moo aboutir par exemple à au code consen consensuel entre guillemets de 2022 euh, parce que les l'opposition avait fait des propositions le pouvoir aussi avait fait des propositions et on a pu avoir une sentence voilà non non par exemple pour ce qui concerne le suffrage universel le suffrage universel ouais. Euh, mooy les les rek les maires tout ça c'est l'opposition qui l'a proposé nous l'avons accepté maintenant par rapport au parrainage y a des points sur lesquels on était d'accord mais y a des pro que points sur lesquels ah, li leen gën a mooy fichier bi ñu am ci accès à temps benn euh, ñaareel bi aussi personnalité neutre organiser élection yi loolu tamit seen seen bëgg-bëgg la euh, y a aussi le parrainage qui qui doit sauter ci seen ci seen bëgg-bëgg yooyu yëpp c'est un faux débat vous trouvez c'est un faux débat pour ce qui concerne une personnalité indépendante pour organiser indépendante pour mhm. organiser des élections mais des élections ont été organisées ou presque on a failli perdre la majorité. oui sauf que avant y a eu beaucoup de. amoon na coow trop même bu dee am na coow c'est-à-dire aujourd'hui si si on ne peut personne. Mhm. personne ne peut truquer ou voler des élections au Sénégal donc loolu pour moi c'est un faux débat. le parrainage il faut comprendre l'esprit du parrainage parce que ñun nous sommes des acteurs pense que euh, ceux qui ont euh, en 2017 mm -hmm. lors je pense que les les observateurs des élections l'ont constaté il y avait presque une trente trente et poussière ou une quarantaine euh, ça nous a de difficultés mm-hmm. ah, mais il faut qu'on filtre vous allez en France vous allez aux États-Unis vous allez un peu partout il y a des parrainages qui se font maintenant vous pouvez ne pas être d'accord venez au dialogue nous allons discuter et puis on va trouver une solution. Ah, discuter euh, am na ñoo xam ne acte politique jamono ji intérêt yi bokkul ku ci nekk sa bëgg-bëgg. ku ci mel ne euh, Khalifa ak Karim xëy na bokkaat mooy seen bëgg-bëgg. Ousmane Sonko bokk bëgg na ko mais la condition euh, xëy na mooy que ne le président Macky Sall moom il doit pas faire partie des candidats en loolu tamit war na moo nekk blocage premier ci ci dialogue bi bi ñu jëm. non y' a pas position am xëy na kon ñëpp dinañ ñëw. y' a pas de a blocage c'est de côté. parce que de l'autre côté. maanaam voilà loolu la y a une mm-hmm. partie qui a. et une partie en tout cas quelques-uns qui sont des républicains ils ont compris il y a d'autres ils sont pour le gassa gassa gassa ils n'ont rien compris donc c'est ça qui se c'est ça qui se c'est pose mm-hmm. mais aujourd'hui le président de la République a appelé au dialogue le dialogue comme je l'ai dit tout à l'heure c'est une tradition au Sénégal nous avons vu en 92 avec le code consensuel euh, le code électoral consensuel. Donc, nous demandons aux républicains de dialoguer. bokk moom euh, wax naa ko je le redis encore une une, une fois de plus. Mm sur le plan juridique la candidature du président de la République est valable. valable parce que il faut voir l'article 27 l'article 27 ñaari alinéa la am donc on ne peut pas dissocier les alinéas. Mm -hmm. l'article 27 c'est deux alinéas quand on les lit que ce soit sur l'esprit que ce soit. Euh, Euh, sur la à la lettre sur la lettre dañu euh, euh, kii président de la république mun na nekk candidat. mais c'est une question politique. mais li nga nii am na am na phrase boo xam ne nee nañu ça change tout mooy nul ne peut faire nul moom dafa dafa jeexal wax. plus de deux mandats moom boo ko déggee ça peut vous savez vous savez je pense que nañu waxante dëgg les ceux qui sont farouchement opposés mhm. mais ils ont fait des des conférences de presse ou en tout cas nous avons vu les vidéos sont les euh, vidéos là les vi ah dafa sont là l'ont pour lui dire que da ngay wax xamoo ko xam nga dama lay wax benn affaire euh, le problème mhm. il faut ñu nangu je je vais conclure par là parce que c'est important il faut ñu nangu ñun ñëpp avis la ñu joxe ñun ils, ils ils ont le droit de dire que le président de la République ne peut pas être candidat c'est leur droit le plus absolu mm -hmm. nous aussi le droit le plus absolu c'est de dire le président de la République sera candidat. maintenant comme au Sénégal nous avons une institution habilitée à déclarer une candidature recevable mm -hmm. ou mhm. pas c'est le Conseil constitutionnel donc nañu wax suñu wax ñu bàyyi bu euh, au moment opportun au moment où il faut déposer les candidatures tout Sénégalais a le droit de déposer sa candidature. et mhm. monsieur le ministre en foofu la jeexale. Euh, gis nañu que ne réew yu bëri. Euh, bu ñuy seetlu que ne état bi dafay ëpp doole dafay commencer euh, di di di noot nit ñi prix prix arrestation dafay bëri au Sénégal. on a des hommes politiques en prison on a des journalistes en prison on a des activistes en prison on a même des prêcheurs en prison ça devient inquiétant no vous savez c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est pas parce que on est journaliste c'est pas parce que on est un homme politique euh, un homme politique réputé qu'on va leur permettre de faire tout ce qu'ils veulent de dire tout ce qu'ils veulent l'État État dafa am charte ñun ñëpp dañoo war a respecter charte yi le il y a eu toujours une opposition qui s'est opposée mais yow mi nga xam ne promotion droits humains lañ la dénk la prison nee nañu exception la war a doon mais Sénégal léegi dafa mel ne ku wax ñu yàpp la la prison euh, euh, ñun euh, aujourd'hui du du du ñu jóg nii rek jël nit yóbbu ko et puis c'est pas c'est pas l'État c'est pas c'est pas le pouvoir exécutif qui emprisonne quelqu'un da def délit le procureur en tout cas mu def la poursuite. mu ne la non tu as fait un délit bon mu yóbbu la mais c'est pas le président de la république. bëggoon naa ne ah. président de la république alors que du président. de la république bëggoon naa a waxtaan malheureusement remercier bu baax. merci beaucoup jërëjëf monsieur le ministre merci am nga jaarama jërëjëf moo ministre auprès du garde des Sceaux ministre de la justice chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance dig daje suba ak allah même heure jaa ngeen